ci sa corps très rapidement. Wade c'est comme un monument c'est-à-dire que tous les Sénégalais aiment Wade euh, bi nga déggee discours Idrissa Seck mu koy xaw a clashé qu'est-ce que cela doit faire parce que ñàkkul nga fekkee lu bëri seen compagnonnage. Idi day politique <laughs> Idi day politique candidat la Karim candidat la ñeneen candidat la mais man pour affaire boobu dama koy jël discours boo xam ne discours électoraliste la rek <laughs> c'est tout à fait pareil ñoom dañuy wut li ñuy wut. donc. Euh, c'est un discours électoraliste. c'est mon avis électoraliste. et puis manœuvre yoo xam ne aussi ñu ngi dem ci présidentielle dans tous les pays du monde day am les manœuvres am na. am na waxtaan yi ci suuf am na ak yooyu yëpp <laughs> ay manœuvre la pour xool comment on va s'en sortir mais il me semble que pour sortir vers le haut pour sortir par la transparence c'est au président de la république président ci boppam. bu fekkee ne bëgg nañu jóge ci lëndëm gi dem ci leer gi. moom rek moom moo am kattan bi moom moo am possibilité moo am initiative mm-hmm. te vraiment ñu ngi koy ñaan mu def